seddaayu ren gi bokk ci seddaay yi gën a taax te demaguñu fenn ñenn ñi dem bay xalaat ànd nañ la ko mool di dundee tey nag ñu demoon seeti nappkat yi ngir xool naka la ñuy dundee sedd beeg ndox mi ak itam yan jafe-jafe lañ ci faral di jànkonteel ñu taaxirlu seeni kàddu ci micro Leral TV. waa géej gi day wax dëgg yàlla man yaakaar naa ne moo yàq sama jàng depuis boobu léegi ci laa ni di liggéey mais pour seddaay bu dee ñu ñi nga xam lañ di dem géej am nañ maîtrise bi mën nañ ko maîtriser mais seddaay bi donc ki muy sonal mooy ki nga xam ni yàggul si géej wala dafa ñëw wàll yaan si géej di jàng kooku mën na metti si moom mais nag ñu di leen yëg mais yàlla dañuy dimbale am na ay gilet yu ñuy sol ñuy wax baas am na ay gilet yeneen ñu ñuy teg si kaw ñuy wax sewetaas mais toujours loolu tamit dañuy dimbali dañuy dimbali bu bare si seddaay bi mais donc benn instant di nga jug jug mu sedd trop mais bu dee yow mi nga xam te xam nga géej ñi ko mën a méncee ba dem di nga xam temps bi day yokk temps bi day wàññi mais am na yenn seddaay yoo xam te nag deen xam ne duñ mën a dem dañuy toog waaw noonu lay demee mais kon ak tamit bu fekkee wàllu napp gi la duñ daan jàpp fii si 4 kilomètres léegi tànk demuñu ay 40 kilomètres 30 seddaay deen di faral dem jën mais boo xoolee géej gi léegi dafa metti parce que loo daan jàpp si 3 kilomètres léegi da ngay dem ay 40 kilomètres 30 kilomètres des fois sama ëpp ko mais tamit lépp bota yi la rek mën nañu si dara ci bote yi moom ki ka fi teg kese ka fi mën a jële mooy ki fi yàlla teg moom mi mën nañu war mën a jàppale si géej gi parce que ñun fi yaa ngi gis xale yi di dem clandestin di def lépp ñun géej lañ yaakaar mais géej dañ si gisatul sañu bopp donc bu yàlla defee jàmm këpp woo defoo dara seddaay mënu la sonal ba mu tax nga am jafe-jafe bu tax ngay ñëwaat xanaa nag bu yàlla bu safaan ñëwee mu mel ay këpp gaal gi dëpp waaw am na ñoo xam te ne seddaa bi muy man ak keneen maîtrise seddaa bi kenn amul maîtrise bi parce que dafa sedd mën nga am jafe-jafe à part ça loolu moom mën nga ko métier ba ñëwaat si. seddoona géej gi macha allah seddoona mais à part bi moom xam nga bari nay jafe-jafe suñu tefes yeex yooyu noonu bari na jafe-jafe trop xam nga lii ko war a def à cause de pandémie bi la quoi sérieusement du bari parce que li ngay dem boo ko amee boo ñëwee. même jour bi si lay yem say farin say dépenses yi ngay bàyyi kër ga wax dépenses yi ngay defaat pour demaat géej boo xëyee si la yem daanaka doo am loo denc comme te ñu ngi dem di ñëw yàlla may ñu wér wér-gu-yaram ñuy dema ak ñoom ñu ngi sant yàlla quoi mais métti na nag foo ko natte moom muy weesu na mais dara ñu sant yàlla rek. bu seddee jën bi day wàcc si suuf dégg nga mais bu fekkente ne ni tàngaay ñëw na kilomètres yooyu ñu lay wax tàngaay nga koy daw jëm biir géej. te boo demee biir géej euh, ay ton fay ut marle naawaan njax seen walas ak wal yooyu ngay wut foofu ak piston mais bu dee fii coof la ñuy def ak badees ak doy heure bii bu seddee ci tefes bi yenn gaal yi tikki ñi mbañ bañeer mais loolu pour jënu sedd la bu bu weesoo nag loolu moom leneen lan la war a wax ndax sedd ndax seddul sedd bi fépp la ne moo li dee nan damm nan fatt nan ku suux dee mooy bi gën a leer sedd lii dee ci si géej gi kenn xamul nu mu tol ku siwut dee gilet bi ñu lay wax naan la gilet bi gilet bi gilet boo ko takkee yàlla tudd sa paatu da ngay paatu gilet bi boo ko takkee yàgg si ndox mi te génnoo it da ngay faatu dee fu mu la fekk dalay rey yor gilet ñàkk yor gilet ci yem mais mbiram seddaay mi daal yaakaar naa suñu mbiram yàlla suñu borom la mais seddaay bi métti na métti goo xamante ne nii ñu ngi koy jànkonteel jànkonte bu métti boo xamante ne nii maanaam préparation bi ñuy bi ñu war ñu ngi koy def te automatiquement seete bii nii ku siy dem ku ne yaakaar naa rek boo ko xamul sax war nga mën a ut euh, di ko diw sa yaram ngir sedda bi nan dax mi sedd na sedd boo xam ne boo si dugg day mel ni dañ si sotti glace te du glace du dara mbiram yàlla suñu borom la rek mais doon na loo xamante ni tamit mool mu si am problème même pas cinq minutes du kenn xamul lu yàlla di def mais ku si am problème même pas cinq minutes bu soobee yàlla bu boobaa dinañ la fàtte boo amul ku la wàllu sedde bi heure bi nii en ñuy forcé sedde bi nii dinañ si am jën moom franchement ba jusqu'à présent bi may wax ak nii tey jii rek laa demul ndax dama ñàkk mais mais démb rek bu ñu na sedde goo mitti goo xamante ne kenn mën ko ku si am problème ku ne rek maanaam sa gaal suuf affaire yooyu noonu boo gisul ku la teel a rek mën nga si am problème mën nga si ñàkk sa bakkan ñu ngay sol mu baax di protéger sedd bi ñu ngay diwoo karité yëpp rek pour sedd bi ñoo ko déggandoo bu dee ñenn ci mool yi amuñu benn jafe-jafe ak sedd bi ñenn ñi ñoo ngi dund lu metti rawatina bu dee Sénégal daa suux ñu leen di ñaan rekk ñuy gën di def ndànk tey di sol seeni gilet de sauvetage